alhamdulilah rabbil alamin idul mubarak tabarakallahu di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baal di leen yàlla buur bi baal tabarakallahu ñu ngi fii ci bi bayaalu sant suñu nguur di julli julli korite gi ànd ceeg tabarakallahu waa dëkk bi di déwéniti ñëpp baal leen baal nañ leen yàlla yàlla boole ñu baal fii ñuy nekk nag mooy bayaalu sant su tabarakallahu fii la imaamu ratibu dëkk bi di jullee fii la imaamu ratib dëkk bi di jullee fii la préfet di jullee ñu ngi ànd ak ci julli gi am ñoom imaam alaaji ibrahima fay bu suñu maam alaaji useynu fay mi ngi ànd ak imaam cheikh ahmad tidiani sarr ak imaam jàmma ci ndigul imaam papa abdoulahi lay ak mboolem a ima yi ne biir mbuur tabarakallahu julli nañ julli korite gi imaam bi def xutba bi gis nga ñi ngi ni def xutba bi tabarakallahu imaam wax na ci fitna yi am wax na ñi ngi kàbbaar yàlla gis nga bu julli gi jotee lii rek la ñuy wax subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar moom rek la ñuy def ci julli gi tabarakallahu lii ñuy def nag xutba boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu masaane jiite pare da koy def ñi ngi nii def discours discours bi ci tabarakallahu arab bu ko waxee ci arab imam Cheikh Ahmed Tidiane Sarr firi ko ci olof xam nga réew mi olof dafee dafee am doole moo tax tabarakallahu imam baa ngi def xutba bi dañuy ànd ak yéen rek tabarakallahu jël xutba bi waaye tabarakallahu julli gi gis nga amul naafila amul dara da ngay ñëw rek toog di kabbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira alhamdulillahi kasira سبحان الله بكل واسلة لا إله إلا الله ممرق لن يوح تبارك الله لن يجيب قطبة بيتي إمام إبراهيم فاي مؤندي تبارك الله وبيلا في كوماندا جاندرمري كوماندا آه، شابر بومبي أغو بولم نتعبول دكبي أغو بولم رسمسابو دكي دوم سخنا يانجي في تبارك الله يوم نبف لن يأندي جولي إن شاء الله لغير لن يكون تنا جلال قطبة بيتي كرام بيتي إمام واحد لن ينكال يارد في تلفزيون بول تيوي إن شاء الله لتح نقام نه كي نمودون أور نمودون mooy boo delloo jaamu yàlla bi nga doon jaamu ci koor bi da nga koy yokk wa ilal masiyati wal tuxyaan wa ilal masiyati wal tuxyaan alaamatu tubdi wal xilaan di mooy yàlla ak di tooñ ak beew nee na loolu mandargay koo xam ne dàq nañu ko ci nangul ko kooram gàcce la itam ci moom Mula Allah, ragalan ya Allah. Allah. Ragalan ya Allah. ibadah lah yang jam yang. Allah. tak kuasa sahadatu najah. Nana ragal ya Allah aku mulai mulan di tekanan Ci la texe nek ci Wal mucc tu Wal fasu wal fala. Nana cila terangkan nak aku ganya aku bete. Allah sawdu min hadhihi Mune di tilka dar. Mune fatasawadu para len yobal. Pour li tilkal daari ci kër gi ngeen nekk te mooy daaru dunya mu li ngeen di taxaw fii nag pour fële la soo yu amul yóbbal doo am dara boo demee kenn du la gàttandu boo de buñ gisee nag nga ci oto yor saak xale yëpp dañuy daw ut si waaye soo toogee fii di fo loo am defe ne yow yaa moom baax na boo yóbbu loo am fii da ko fi bàyyi loo liggéey da nga ko fay fekk. alaaluha isaab. mu ne li fi dagan te mooy alal ji. te dagan ñu sant leen ko dañ koy régler ëllëg foo li nga am nga nettali ko ba mu leer nañ foo ko dugal am na koo xamante ne buñ ko laajee la nga am foo ko dugal dina yomb. wax na ne julli bu ne dafa wax. bu ñu nee cinq bu ñu nee cinq heures la. mooy quart wala mooy dix. nga nodd mooy quart wala mooy dix. ci julli amoo fajar. ku julli jamono booba nee na amoo fayam nee na amoo fayam. naafila nga am. naafila nga def. julli dafa am waxtu. julli waxtu la am. li ñu modernisé dafa bari. nee na li ñu soppi am nu ñu ko melale dafa bari. téere yi mag yi woon. téere yi nga xam ne moom la ñoom maam bind bàyyi fi ñu jàngale ñu ko. ak yi ñu fa fekkoon jàng ko. waxtu yooyu ñu waxtu yooyu ñu wax. ñoo walaatu ñoo walaatu. mooy aqimi salaata li duluki samsi. noddukat yi ci Mbuur. noddukat yi ci Mbuur. yi may dégg. yi muy dégg moom. quatre-vingt pour cent. quatre-vingt pour mu ne. duñ leen wax. noddu ñu wax. quatre-vingt pour cent duñ leen wax. quatre-vingt pour cent nee na duñu leen wax. doo nekk ci jàkk. doo nekk ci jàkk. di di di décider ñëpp. parce que ki ñëwul jàkk ja. ki ñëwul jàkk ja. dégg ñu ñu salaat. am na droit julli. am na droit julli. bu boobaa bu boobaa. jotagul waxtu julli jotagul ñu ne nen kii dinaat la moo gàddu bàkkaar ba wala tasiru wasilatun wisru uxraa waa koy mu ngoog bismillah wa kaana alayhi salaam yusalli wa li sadrihi asirun ka asirin mirjan nee na sallallahu alayhi wa sallam bu ma daan di julli ni mu daan fonkee julli gi nee na dënn bi dafay ri di di di sab ni nga ne cin mu ngi baax noonu cin biy def ci baax gi rëgg-rëgg jooju nee na dënnu sallallahu alayhi wa sallam noonu laa def. bu góorlu dafaa mel ala ala wajal yi. nee na góorgóorlu leen ngeen sax ci njàqare. waqiila awxaa allahu taala ila daawud alayhi salaam. nee na mu leen wax kat moom la yàlla wax yu woon yonti yàlla daawud alayhi salaam. yaa daawud. mu ne ko yow daawuda. بني إسرائيل وخلق بني إسرائيل من من ترك صلاة واحدة لحين يوم القيامة ونا عليه حسدان نانا كيف كوغمنا بايد بين وقت بين وقت تولي نبان كو تولي نانا ديان داجا يوم القيامة فك موم يالا جن نتيو موي مرنا لا قال عليه السلام نانا ينتبه بنانا من يقع له مديون صلاته منكب كتسجي الله fekk yow mu dee li salaati lam yaqbal allahu bi shay'in min hasanati nee na lu baax li nga defoon fekk nga tase yàlla nga def fekk julliwuloo nee yàlla faaleetul sa len len len faalewul. wala tasiru waasilatun wisra uxraa mu ne defal ma lii kii jóge fii defal ma lii kii ñàkk lii defal ma lii nii kooka la ko defal du gàddu waaye dana ca yow mi ko ko sant yaa ci am ku ne bàkkaar bi nga def yow la ko yàlla fay waaw man est-ce que Saliou Samba mii mën naa fayu solday préfet bi man ko xanaa am dafa procuration si nga اللهم موعظة الله الموعظة أيها الإخوان من اليوم خم يجي خمين يجي بوكين تاني أعزنا الله وإياكم من سبيل الشيطان من مجي مسلم باب ci say ayu seytaan mu ngi koy mosul. alladi laysa al-jadid liman labisa al-jadid. mu ne nag muy delluwaat ginnaaw fee korite nekkul sol mbuba mu rafet kese du loolu de lan la. innama iidu liman taa'atuhu tasiid. mu ne feet pire mooy ki nga xamee ne bi mu ooree ba koor gi jeex foo ko fekk di jaamu yàlla day yokk mel ni Mamadou Laye Niang ويسلي لمن تجمل بلباس مركوب والمركوب mu ne nekkul ci it ngay indi oto bu rafet nekkul ci loolu nekkul it ci tam rafet sol bu mu rafet déedéet. innama idu liman xafa liman xufirat lahu zunub mu ne it a ngi ci koo xam ne kii wóor na la ne jéggal nañ la say bàkkaar yàlla ñu tuddal mu ne ci guddi it ga غير ذي قدرة في الخلق wal maxfirati alal adid bi mu ne bu keroogee nag dañuy teqale su euh, mekku doq yi baat yi ak njéggal yi ci jaam yi ci la ñuy séddale lépp waaw ne nañu kuñ ci fekk guddi jox la dara nangul la sa koor gi jéggal nañ la kon man boo demee nag naa rafet njort boobu ma sol ki ma ko indil quatre heures moins quart la ma ko indil ci guddi. wa man lahu shay'un wa shahid. nee na. wa man lahu shay'un minha fa huwa mu ne guddi googu ku ci am dara yow texe nga. mu ne bu dul loolu. kon nag loolu na dàq lañ la fu sore قال عبد الله بن مبارك nee na Abdoulaye ibn Mubarak nee xam-xam borom xam-xam bu la bu ñu barkeel xam-xamam. li raa'idin. mu ne dafa mas a wax benn laab la. mate idukum. kañ la seen it yéen. qaala kullu yawmin laa sallahu fiihi fa huwa yawmu mu ne bés bépp bés. boo xamee ne toog naa ko. ba jant bi so ma toog sama digg lal. vérifier sama bopp ma dox yëpp ma gis ne mooyuma ci yàlla keroog a feet la ci غير مجبور على من يسعى من عباده بالنصر سديد. mooy billaay maa ngi seet di sant bu baax di seetlu tudd seetlu ki nga xam ne billaay lu ko neex mooy xéewal ku ko neex ci jaamam ci xool ko xool ko jub. wa iyyaakum an yaraakum Allaahu bi xayrin mustaxilin mu ne mu ngi leen di moytuloo bu baax an yaraakum Allaahu bi xayrin mustaxilin ci pour yàlla gis leen ci loo xam ne soxlawu nit du nekk ci lu ko neex lu ko du jëriñ min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa ya'nihi loolu la wax ay bismillah loo bëggul jël naka la ji bu fan la yakunu min aynihi saaqitiin kay laa takun mu ne pour bañ a nekk pour bañ a nekk min aynihi saaqitiin nga nekk di ko xamee kii ku ñu mere ngay doon wana laysa al-id liman labisa al-jadid wa anhu alayhi salaam yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mu ne masul di jooy di sab di way péta axbar ci mu ki ko nettali mooy abi sarrin law ta'lamuna ma alimtum la dahiktum qalil mu ne bu ngeen xamoon li ma xam ree yu bëri yi ngeen di ree di ngeen ko bàyyi de di ree tuuti wala bakaytum kasir ngeen di jooy lu bëree bëri nag وما جلستم وما جلستم بالنساء على العرش mu ne du ngeen nekk di bànneexoo jigéen ñi ci kaw lal yi mu ne bu ngeen xamoon li mu xam da ngeen di reelu tuuti di jooy lu bari te di ngeen bàyyi jigéen ñi dootu leen bokk ñoom la. wala xarajtum ila sahdaa'i. ne ne kon nan ngeen di def da ngeen di dem yéeg ci kaw montagne yi di yuuxu. taj'aluuna ila llaahi ini ani sayyidatun tu'ba mu ne bu booba da ngeen di yuuxu ci yàlla nan la wadattu inni sajaratan tuqtadu ay waay aka neexoon man ma nekk di garab goo ne dañuy jël semaine ji ak góor dem ma gaar ñu dem ma aka neexoon ma nekk ko yàlla tëli kun tubaabadidu lima li nga xam ne wax nañ nga mu ngi ñëw xam nga bi ñu leen nee weer feeñ or ne la Koré dina ñëw Koré ñëw waaw ñu ne la diggante doo préparé baax na. du kullu aatin aat. lépp lu ñu la ne mu ngi dikk rek egsi na. walaw annakum musaafiruuna wa ilaa laaxiratin raaxiluun. mu ne xam leen ne yéen ñooñu musaafiruuna da ngeen tukki si fii de alaaxira raaxiluuna fa ngeen jëm de préparé leen ko bu ngeen yóbbal. wa tasiiru daarukum haadihi ilaa sawaal. mu ne seen kër yi day mujj dootul doonte la yàgg ngeen fi kon rafetal ko baax na waaye kawe ko lool baaxul. wala nahinu xasiir taasabun mu ne lu mu tuuti tuuti tuuti ci li ngeen def lu mu tuuti tuuti moo xam dafa toll ni naxiir wala xijmiir mooy rëddu tàndal ma boobu euh, tàndal xarxal boobu rëdd bi ciy ne mu ne li nga def bu tollee noonu sax dina nekk rek dana. wa bayna yaday llaahi xatal mawquufuun. nee na bés boo ay waay day am bés boo xam ne ñun ñëpp. dañuy indi taxawal ñu ci kanam yàlla. qaala taala. yàlla nee na. wa tanzurna sunna qadama li xadim. na góorgóorlu xool bu baax seetantal nit ki li muy def lu tax mu di ko seetantal ëllëg day ñëw de mag ñi nee nañ ëllëg du ay waaye yàlla naa seet. subhaanahu wa wa'idu mustamat. mu ne muy tur yàlla. li nga xamee ne moom béet te mooy càppaatu bi. waaye waaye mu ànd ak ku lu ànd yi sa yaay dem ila amalihi. nee na xam leen ne ku nekk. كونك كمودا سلكي بيجي لكي تنين تبقى برزا تعالا كتسكرا ولا يهوج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله نلا كان لوكان ادنا تكسلو سلونيا ولا سلو رفت لغلون نلا كان كان لوكان تكسلو حسن عمله وسوء عمله ام نرم نعم. إنما اليحمد خواتمها ما يجب يقول لك من أم تبوك ni yakul yep ci termination la ñuy yakko moo tax yàlla du fay départ xam ngeen lu muy fay arrivé. wallayli wa nahaari mudiya nakiyataani. guddi geeg bëccëg bi ñaari warukaay la. ahsinuhu yi mu ne yéen ci nekk. rafetal leen dox gi ci ak kaw asamaan si wala suuf si yu bëccëg beeg guddi gi nee na leen dox yi ngeen ciy dox jëm àllaaxira. waxsaru taswiifa wal bud'aan ay bayi len yakam ci ak yeex tayal ci lo nek ci diggante bi ku loo amalin affaire yëpp bi ci gën moy bi ci gënoo tasaamuhu fi ma baynakum al ko def nasa ci loo xam dañ ko wala nga wax ko ne nangam. nangam wala nga junjee waaye li wóor ne ko baal ma àq am na koo xamee ku boo ko waxee la ko def loolu la baax. waaw man la xaw ma xaw ma yëngu fii dinaa xamee ne bi foofa eh toppatoo leen ko fii fële dërëm dinaar amu fa euro amu fa dollar amu xam ngeen lu fa am jëf koo fi amee bor bañ ko koo fay soo demee sa tiyaaba la ñu jël jox ko feye ko bu sa tiyaaba jeexee sa bor ba jeexul ñu jël bàkkaaram jox la ku bari bàkkaar dem safara papa ma man safara o wa fi seen radio wa ma man xabar moisima fu mu haawiya jeex na tey waay maa ngi góor gi nga xam ne ci kattanam ak man-manam ci la gaal di dawee ci gaw géej tëdd suuf maa ngi ci seen kaw. yéen a ngi leen Salemo ay amul xarit bu ñu xarit bu woon. góorgóorlu leen ku nekk dina xam. ku nga xam jógee woon di fan nga jëmaat dina xam na ko ay mun xale bi yan xale woon di ngeen ko xam baax na. wala moo amee laa amarakum bi mu kami kitaabihi mu kañ an dinabihi. yàlla leen di digal dana ñëw. man am naa ko bi salaati wa tasli ala nabihi karim ay suma ay sama xale bi ibaadi kadi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك والغير كله بيدك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى سالك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها الحي والرداء والتيسير وتقول بها بالبشر والتعظيم وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النظير ورضي الله عن جميع أصحابه والخلفاء ذوي المجد والإناث الذين قال عليه السلام عليهم السلام في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ردوا عليها بنواجس لان الله ممن بعيونه لا يسر ويوم ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نحن عذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا آمين ينادي من آمنوا بربكم آمين فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا آمين وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي الله يا الله رب العالمين أصلح أمور المسلمين أجمعين الله يا الله رب العالمين أصلح للمسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا ñu dé ñu profité balaa dem ñu baalu ko àq rek déwéniti ko temps bi bariwul ñu jégalu ko. sëriñ bi ndaw ndaw ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar ñu àq. baal nañ boole ñu baal. amiin def ngay kii kilifa dëkk bi ñu fekk la ci jullikaay bi looy dénk sa njaboot ci bésu iid bi. xanaa di leen euh, baalu ñoom ñëpp di leen baal àq. tey sant yàlla bu baax moom mi ñu may ñu fekkee. tal jëmmal ndaxte weeru koor bu ñu ci duggee ba génn ci rek ñun ñëpp dañu war a sant yàlla suñu borom uh-huh. di leen sant yéen tamit di leen baal di leen baal wax uh-huh. di delluwaat di wax njaboot gi rek nañ tënk ci li imaam wax rek uh-huh. topp yàlla fonk digle suñu borom bi topp fi nga xamante ni yonent bu tedd Muhammad sallallahu alayhi wa fa la ñu joxoñ buñ ci tënkoo rek yàlla defal ñu jàmm gën a jàppante gën a doon ay mbokk te bokkoo loolu ñu ko defee rek ñu am jàmm ñu ñëpp dañ am jàmm te loolu la yàlla bëgg jërëjëf barakallaaw ñu gis ne bala ngaa dem nga may ñu yaa ngi song ay travaux ci dëkk bi foo toll ci wàllu liggéey bi waa ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci lu baax te ñaan ngeen jàpp ci ndax bu ngeen ci jàppee population jàpp ci li ñu bëgg dina sotti li ñu bëgg du leen lu setal dëkk bi taaral dëkk bi leeral dëkk bi waaye ubbi dëkk bi ba kenn ku ne am fooy jaar ba ki nga xam ne am nay gët mën a dem ci xelam mu dal ki amul i gët it bu bëggee dem demal xel mu dal te dara du ko gàllankoor loolu mooy sunu yitte te ci la nekk kon euh, fu xat-xat nekk rek commencé ko ci marché bi danañ ko song bu soobee yàlla ubbi ko te xam ne nag séntu wuñ ci ku ci kontaan ak ku ci kontaanul dañuy liggéey te yàlla tax. kon daal yéene bi mooy defar dëkk bi. defar dëkk bi ba mu rafet ba mu set ba mu tegu ci yoon ba ñëpp bokk mën a am li ñu bëgg ci dëkk bi. kii nag mooy wéy jur El Hadj Samb bi ne Mbour TV di DJ Elzo tabaarakallaa borom dogu ak tabaarakallaa papa Samb ñu ngi lay ziar. yeneen yàlla nu ziar. déwénati. fekk leen déen baal leen nax baal leen déen yàlla nu yàlla boole baal. amiin ñu ko defee julli gi rek noonu lañ ko daan defee nag. koor gi jot ne di gërëm nag képp koo xam ne mooy umma umma islamique la bépp jullit boo xam ne bisu iid muy korité muy ci bayaal bi julli ñaan li nga xam ne itam mooy li nga xam ne mooy jàmm ak salaam ci réew mi te itam di ñaanal sunu kilifa yi di ko def ci président de la république ba ci sunu préfet département bi nga xam ne mooy Sayer Ndaw ak kilifa yi nga xam ne mooy sunu élus yi nga le maire de la commune de Mbour ak ñi nga xam ne mooy sunu imam yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan koor gi nga xam ne moom la ñu génn lépp luñ ci ñaan yal na ko yàlla nangu ci barke Seydina moom sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Samb tabarakallah mi ngi noonu suñ papa Makhtar Samb nekk ci administration bi macha allah di kenn ci dëkk bi Samb ñu lay ziar waaw ñu ngi sant déwénati déwénati baal leen yàq waay baal leen la leen na yàlla doolu sutura bi amiin Samb euh, doolu wërsëg yi bi buntu wërsëg yëpp pour ñëpp mboolem julit gën ñoo saxal ci l'islam gën a defar euh, xol yi gën a yaatal xol yi c'est important waaw tabarakallah ñu ngi fekk ci jullikaay bi noo déggee xutba imaam El Hadj Ibrahima Faye waaw mais xutba yi la ñuy soxla xam moo tax parfois nit ñi war di toog. parce que day dalawaat euh, di xam lan mooy àdduna. xam nga maa ngi doon waxtaan dem rek sama benn sama benn xayit ma ne ko damay dégg parfois ñu naan dañoo war a amaat yeneen yeneen exemple dañoo war a yaraat xale yi dañoo war a comme ça dañoo war a defar yeneen il faut ñu daal ñu defaraat xol yeeg defaraat defaraat boobu ñuy def yooyu yëpp c'est parce que alxuraan bi nga xam ne yàlla moo ko wàcce jox ko euh, ay jaamam alxuraan boobu ñu ne ko jëlee comme comme diko ko tari rek tan warul nekk lu ñuy tari rek théorie lan la pratique la moy lu ñu soxla yëpp mu ngi ci moy euh bëgg sa morom yeen sa morom lu baax di wax lu baax di jëf lu baax suñ ko doon def léegi léegi Sénégal jëm kanam àddina bi jëm kanam ba lañ la bàyyi tabarakallah di nga nañ imam tudd la tudd zawiya bi tudd juma yi no def ak daara yi ak ite wàllu juma ju mag ji tabaarakallaa ngay kilifi ci dëkk bi wa xam nga man euh dama ne man luy dem sama diiné uh-huh. euh duma ci wax

wala may def ci ay ay ci ma dem di ko wax nit ñi di ko xam di ko fësal parce que loolu day nekk ngistal la loolu sama diggante ak sama borom la xam naa lu ma war maintenant nag lu ñuy def ci ay politique euh, pour di loo xam ne politique moo ko moo ko laal loolu ngeen di dégg ñu koy wax du dëgg mais daal xam leen ne Euh, jumaa ji nekk juma mbuur bi euh, euh, moom mooy sunu mbébét moom mooy pour ñu eggali ko te incha allah dinañ ci taxawaat ak sunu kilifa président Macky Sall ba nga xam ne lu mu waxoon da koy defar tax tànk yooyu la nekk parce que voté nañ budget boobu yëpp joxoon na ordre yi pour ñu def ko te incha allah dinañ def tu ba nga xam ne jàkka ji mag ji ñu yeggali ko et puis comme du may wax rek man soo nekkee ndongol daara nekk njulit il faut ngay def si daara yi daara yi xale yi ñu leen joxaat

waaw te dégg ko te xam ne aussi euh, àdduna du dara àdduna kii la rek yoon la rek booy jaar bu dem ñu koy rafetal euh, te xale yi aussi tamit di gën di euh, jàngat di déglu mag ñi déglu mag ñi te ñu wax am na solo mm-hmm. te li fi nekk mooy dëgg du ay caaxaan du ay fen deug la tay xalé yi nañ xam ni li fi ne deug moy mooy allah àllaaxira dafa am waaw dañ ko ni li ko imaam waxee rek dañu dañu jema liggey suñu suñu allah àllaaxira te heure bi lañ ko mëna liggey waaw lepp lu waaye daan def rek nga xalaat ni tay jii nii war nga ko koy mëna jëlé te def lu baax te ëllëg euh, nga mëna li nga xam te lu baax nga def fi mo nga mën la ko fay ëllëg yaakaar naa imaam lu ci loolu waxtaan kon xalé yi euh, nañ deug nañ nañ jappal imam wax xamni xam ni yagul adna yagul àdduna yàggul na Saliou mom mooy suñu mooy suñu kilifa mooy suñu lépp loolu ya, wax sa xarit Ndiaye Diatou directeur télé bi Ndiaye Diatou moom donc oh. kooku moom sama sama sama sama frère la moom moo xam moom bañ na ko ba lu muy am bu ma ko dee njaay rek dana am ah maa ngi koy waaw du ne sax jox ko daa yow moom maa ngi rek toogal rek dina ñëw waaw tax yaakaar naa ni bu TV ñun nañ koy ñaanaloon dañ koy ñaanal ba léegi mhm. te yàlla def na ne amul parparloo ñëpp la àndal waaw ñëpp la àndal ku ko oo oh, ku mën a doon loo tuuti tuuti dina ñëw fekke si la fekk na ñoo xamante ne tey jii nii Abdou Aïs waxoon mooy mhm. que sa dara daraja boo ci mënee darajaalal ku amul daraja yow du yokk wàññi dara ci sa daraja alaaji Abdou moo daan wax loolu moo daan wax ne yow sa daraja su fekkee mën nga cee darajaal ku amul dara ci daraja du yàq dara ci sa daraja te njaay loolu lay def xamul ne kii autorité la ak ki nga xam te ne amul dara ñëpp la ci yemale ah, kon Ndiaye yal na ko yàlla yokku ba mu TV ñu koy dégg ba télévision bi génn ci euh, ci canal Horizon incha allah tabaarakallaahu ñu bàyyi la nga waajali affaire yi mi ngi noonu Alaaji Malick Samb lañ doon waxtaanal di frère ci Serigne Saliou Samb tabaarakallaahu dégg ngeen kàddu préfet dégg ngeen kàddu président code Saliou Samb dégg ngeen imam fii ci jullikaay bu mag bi bayalu sant su bi imam ratib papa Abdoulahi fi jullee Sayer Ndaw préfet dëkk bi kilifay dekk bi yepp fi nak ñu nekk moy julli kay bi mag ci mbuur ni juma ju mag ji magé ci mbuur ju euh, tabarakallah mu yaatu nak tay ba julli bari yal yalla nak yepp julli nañu korité gi fi ci sant sou le 5 tabarakallah juin mu tomenté ak alarba na yalla nangu ko inshallah rabbuna luñ ci ñaan yalla ko waye di wax ni tabarakallah dégg nañ khutba imam waxtaan na ci julli waxtaan na ci ak wayjur waxtaan na ci yowmal qiyaam soññaat na xalé ñu fonkat jakkay di julli juroom tak julli ci waxti imam waxtaan na ci taxaway yowmal qiyam waxtaan na ci tabarakallah tabaarakallaahu wu topp way jur waaye waxtaan na ci tabaarakallaahu fàttali ñu li nga xam ne ñu topp muy dee xam ne alladi xalaqal wal xayaat li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan imam waxtaan na ci dee ne mi ngi ñëw te danañu jàpp waxtaan na ci bésu pangama muy yowmul xasri yowmul qiyaamati muy yowmul nadaama bés bi ñuy dekki taxaw ci kanamu borom bi imaam tudd na aaya boo xam bés boobu wa hum bi sukaara walakin adaballahi shadid imam soññaat na ñu bàyyi xel dee koor go nag lañ doon ut mooy ragal yàlla te inna akramakum indallahi atqaakum taqwa lañ doon am kori nañu yan na yàlla may ñu ko yan na yàlla nangu ko ñi ngi déwéniti ñëpp bal leen ñu bal nañ leen yan na yàlla jéggal ñu aydul mubaarak fii ci Mbour TV ñi ngi jéggalu ñëpp ak soppe yëpp di leen jox rendez ci kanam tuuti insha allahu rabbuna ak oustaz Ismaila Sène bu Seydina Mouhamed wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu